jërëjëf mbokki internet yi ñuy bàyyi xel fu waaye mën ci réew mi ak bitim réew ñu ngi lay ziar bu baax a baax a baax di la jox sa wàccuwaay mbokk yi comme ni ñu koy defee saa ne tey ñu ngi fi nga xam ne moom moo di géejawaay seet si le grand champion gannaaw man fi mu jël lu yàggul dara keroog bu mu bëree ba noppi suma jumul lañ ko jël si woon tey nag ñu seqat ab waxtaan ak moom dé boobu ba léegi nag yaakaar naa moom moo tëjoon saison bi mais dégguñ ko ak combat waaw ah, loolu nag li ko waral dinañu ko wax incha allah ñu waxtaan tamit ci adversaire waxtaan tamit ci actualité làmb hmm, du ñàkk tam ñu mu ñëw ci ay Modou Lo Ama Baldé combat yi nga xam ne jëm nañ ko incha allah ak combat yi nga xam ne Guédiawaye tamit na ko moom Youssou Ndour tey dama koy nuyu rek bàyyi ko mu nuyoog mbokki internet yi ñu dugg ci waxtaan bi mbër baa ngi lay bëgg. maa ngi lay fay ginnaaw ma sant yàlla julli sant bi di sant samay ñaari waajur di sant sama waa koñ muy Sira Barak di sant guy ga laa juddoo laa lépp xam nga di sant sama fami yaay ak sama fami papa bu wa waa ma maa leen at ak axlu baydu rasul laay yëpp waa papa yàlla ko suuf at julit yang dat ba nga ah. yang ngi dat ba nga bëree woon. <laughs> yaa ngi koy fàttaliku. waaw maa ngi maa ngi le 29 le 29 ñaata la woon. le 29 la. le 29. Ah. Ah, mais ban mois la mois mais lu waral loolu tam. ah. lu waral nga fàtte mois lu yàggul dara nga fàtte ko. non xam nga rek nit moom man moom mooy la su lu ma jógee jógee naa si ma pare pare naa si waaw. ok mais le ut août la woon ah. la waaw. <laughs> tey tey <laughs> léegi tey la kañ. tey la. Euh, tey la xaw ma daal man weer moom jàpp ma ko. Youssou baal yooyu. billaahi yéen moom dama ko jàpp. am na solo 29 août nga bëree woon arène nationale yaa tëjoon saison bi boobu léegi dégguñu la ak combat lan moo waral loolu ndax ndax bu ne Youssou Ndour moom moo fi ëpp ay moo fi ëpp ay adversaire mën naa ci làmb ji mais parfois da bëri nag toog lu yàgg du am ay combat. non dëgg la adversaire yi ñu may jox parce que moom ma arrangé wul ak war a bëree man ñoo bëree soo man yaa ngi dégg du lenn loolu rek la waaw mais comme gars yi ñoom Youssou nga war a bëre wala lii xam nga mooy loolu daal mais suma ma man heure am combat bu yàgg ndax su weer daan naa am ñaar ba ñett ba ñeent combat mais ren moom amaguma combat mais maa ngi toog di déglu rek nekk mhm. léegi ci biir bi promoteur yaa ngi lay woo. waa promoteur yi ñoom may woo ñoo may woo di ma wax combat mais combat yi ñu may wax tamit xëy na arrangé wu sam booy ndax fu mu toll nii làmb daa toll foo xam ne ñun bu ñuy bëre suñu booy ñoo tax. ñoom ñooy xool lu leen arrangé wax ñu xam ñu mën a ñëw jàpp si gaay yëpp jàpp si ñu bëre. Mhm. ci biir at ci biir ñu lay proposé ñan la ñan la ci adversaire waaw non du ma cité ndax mais yow xam nga yaa ngi ci biir làmb xam nga carrément am ñoo xam ñoo ngi ma ko doon wax seen suñu combat. man mënuma mënuma ko xam. waaw kon mu comme nga mënoo ko xam nañ bàyyi ndax koroog dama ko tudd am samay kilifa yoo xam ne dañoo dal sama kaw ndax buñ ma waxati bu ma toogati wax comme lu mel noonu neen na ñoo ngi dox sama combat rek mais dafa antoogul yeah. adversaire yi ñoo baaxul ci wala. waaw adversaire yi man rek. Mhm. ok yan yan fi mu toll nii yan adversaire nga la Youssou Ndour soxla ngir mën a jëm ci kaw. waaw man moom su ma sama combat ma ak Dóor combat bu neex la. yeah Garga combat bu neex la. Modou Dia combat bu neex la. ambulance bu kee doon nañ dox suñu combat mu yàqu woon su ma ko amaatee sax mu neex. ok mhm. waaw. ah ambulance ambulance daf fi amul contrat amul contrat amul dara. amul contrat amul dara maa ngi wax sama grand sama xarit mi Papa Sow waa jàmbaar daal waaw maa ngi leen di déglu di déglu sama PGD mi Kànji mi sama lépp maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax mënu ma def te du ma nuyu Kànji te du ma ko bëggee maa ngi koy bëggee bu baax waaw. mais la moo tax nga choisir waa jàmbaar pour bëgg boobu ko. su ma man daal dama tudd tur rek mais ba bañ wax ba dama tuddaat Kànji sama papa Gaston Mbaye xam nga Fallou njaay sama xarit. xama nga Assane Ndiaye sama gars man dal maa ci si ci ñom ñoom Mour Baye Fall ñom Fouta ñep kep ku nek ci làmb ji rek ku mëna teug sama combat teug sama combat man aw ben promoteur mo ci dina la ya war teug sama combat ku teug sama combat rek mo war teug sama combat wa adversaire yooyu nga lim nak su jumul quatre adversaire la Modou ambulance hein ak ñan euh goro sok bari na ay champion yo xamni lim nga len ak Garga numéro 2 te ñun ñep ay champion lañ Youssou wa ñun ñep ay mbeuri ma lañ man ñooñu fu doon ñoñ la wara beurel ndax man booba tey ñu may bëre ñëpp may bëre may tek sama tour may tek sama lepp kon na dama dama dépassé niveau bobu waaw dama wara xol xool sama kanam ma dem jëli ji ko ok. ñoon ñoon moom duñ ay ñeexu ñebe. waaw man tamit duma ma ñeex sama samay morom lañ rek ci lamb ta ñoon ñi ma la wax ñëpp ma la ëpp victoire ëpp leen combat ñom jitt ci lamb ok waaw. waaw bari na ñoo bëral mom ci ci biir lamb légui nak lamb ji noo ko gisee. yéen a yéen saison bi. Euh, Gora Sock ak Mama Lamine ñoo tijji saison bi suñ saison bi su jumul dem nañ sax ba trois édition wala quatre édition ñu koy bëri jamono ji naka nga jàngate ubbite saison bi. waaw neex rek mais ñun ñooy jëm ci combat yi mag su mel ni Gàqu moo xam ne day bëri dimanche bi ñëw topp ñaabu ndaw day bëri dimanche bi ñëw ñun ñooñu lañ dese instant yi géej muy Gàqu ak bu ndaw. te ñun waa Géejawaay bépp ñoo ngi seen ginnaaw di leen soutenir ñun ñëpp nag ndax géej Géejawaay benn la te ñaabu ndaw bu xewle gàqu le ñun ñëpp benn lañ di jàllale open presse bi mardi stade Amadou bari di woo ñëpp képp kii doomu géej Géejawaay képp koo xam da ngay bëggee géej waaye rek ñoo ngi lay woo nga ñëw si open presse ñaa waaw di ko ñaanal ndam bu sedd guy te yàlla mën ndox yàlla na yàlla def moo gàqu waaw. gàqu doomu ma naan sax sa la. fu nga fu la gis rek gis ko fa moom Gackou 2 bu jëm na ci combat bu metti combat bu tar yàgg naa bëri ay combat yu metti nag mais bii da cee rawate muy Pokola Baldé non Gackou 2 dañoo juddandoo fawandoo defandoo lépp tëdd moo ñu tàqale te yenn saa ñooy bokk fi ñu tëdd xam nga kon dañ koy ñaanal moom dañ koy ñaanal ndax moom gis nga bu ñu amee combat nu mu si sonnee di si bàyyi léppam di ñu fee ñuy yeewandoo demandoo entraînement defandoo lépp kon ñun benn lañ daal suñu ñun Mar Samba Lobé Siteu ñun ñëpp benn lañ mais Gàqu moom mooy suñu maïs mooy suñu kilifa moom mooy suñu mbërum mag waaw di ko ñaan laat yàlla suturaal ko may ko Gàqu de. Eh, ki muy bëree la. non ki muy bëree amul danger. kooku mot loolu yow rek laa dégg nga wax. kooku mot Gàqu seen bëre méngoowuñu sax. xëy na nag moo toog di pokoleeru di wax lu ko neex. Eh, du mu pokoleeru kay Gàqu kay pokoleeru. du nee na mooy dof. Gàqu mooy bu dof bi. waaw xam naa bu dee xeex gàqo du daw bu dee bëre dàq gàqo ah moom lépp lu muy indi si laam ëppale wu ko dara si gàqu loolu waa Pikine nuñ ko d'accord te fu mu ko teg ñun teg nañ ko fu ko raw nu mu ko bëggee bëggee nañ nu ko raw poxlaa la lay wax hmm. waaw moom daa ab champion la doomu mbër la de moom koo fekk ci kër gàqu doomu la ndax sama papa kon kay gàqu ba pare nekkaloon ay champion nekk ku nekkal ay Mafal Sey ah nekk ay père Aline Sey nekk Baye Balla nekk père Gora kon ay champion ko wër ah, kon kay Sida Baraak la làmb mu ñaay heure war na fekk moom ay ay ay roi des arènes dafa waroon yeewoo fii Mafal doon dund wax nag laa la wax kon ñun fii gox làmb la maa ngi dégg bu defee interview na fii fii moom xam na fii bu baax. waaw mais dégg naa tamit yéen tamit xam ngeen ko gàkku na ko bu baax. gàkku du mu xam gàkku du tal. parce que day fréquenté foofu sama jiw. gàkku fa la kër papaam nekk Pikine Pikine la kër papaam nekk moom lu mu xam fii benn ñun xam nañ foofu lu ko raw lu moom nee na gàkku bu ko xar rombee sax muy foogu moom tamit na bàyyi yu muy def. daa man jàpp nga li mu wax de. no parce que moom da moom parce moom dañ day dañ moom dañuy xam lu muy def te duñ ko wax fu muy seetloo lépp xam nañ ko. waaw kon nag lu gën a nice mooy affaire làmb la xamante nañ suñu biir waaw. amaa ko indi de ak Jacob bale ñoom seen. non ñooñu da ah, sama xarit la sama waay sama lépp la Jacob mooy loolu. yaa ngi dégg mais luñ ko indi indi indi ñoom fu ñuy taxaw après. gàqu mooy taxaw si biir ñoom ñaari nekk si biir. kon jeexal nay wax. waaw. am na solo léegi nag saison bi mën nañ cee xaar nga bëri pile de 3 ba 4 combats. waaw man maa ngi toog rek di déglu déglu sama staff waaw di toog di xaar waaw man moom làmb moom mooy suma métier ndax ma bàyyi lépp ñëw ndax ministre laa woon bàyyi lépp ndax mi làmb kon di ñaan yàlla rek yàlla may ñu komba may ñu si ndam ndam moom bëgg nañ ko trop waaw. mais mais làmb dafa metti nag te boo xoolee li lay liñ lay liñ lay fay yëpp après da nga koy financé ci làmb ji sa sa combat. te amoo liggéey loolu naka nga koy dundee boo boo amul combat nii naka naka ngay dundee maanaam ci wàllum koppar dimbali sa njaboot. waa am ay nit ñu baax rek di nuyu sama papa Zal père Zal bu nekk Paax Lambaay maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax si jàpp bu baax ñoom laay conteneur xam nga ñoom baaba baaba baaba baaba Dakar xam nga ñoom ndongoloo ñoom Abdou Tall daam ñoo xam dañu may soutenir bu baax kanji kanji tamit si raanu ma benn yoon. waaw pas de Cissé pas de Cissé tamit seetaan ma benn yoon at ñi ma dëggal yenn saa yi xam nga mbër moom ñu mu dëgg yenn saa yi nga romb sa benn waay làkk benn taw wala làkk benn 2000 wala benn junni xam nga te ñun ñoo loolu ñoo fa am si ñoom mais ku xam nañ làmb dafa métti. ok mais mais mais mais est que nit mën na cee dëkk loolu. non mais xam rek tey ñun. ñun bu ñu amee combat dañu jël suñu xaalis ñëw séddale ko ñun kon ñun bu ñu amee ñun bu ñu nekkul nit ñoom milliardaire sax nekkul ñoom chaque jour dañuy am yàlla suñu borom nekk chaque jour da am tey dalay may suba doo yor yaa ngi dégg yenn saa nga am ay milliards am jour boo xam ne da bëgg retirer banque doo mën a retirer kon suñu boroom ay mbiram moo doxalee noonu fii kenn matlewul yàlla suñu borom rek matle mais dañuy sabablu waaw. am na solo léegi nag jëm nañ ci ay journée yu bare bare bari ñu tënk ci journée Modou Lo Ama Baldé euh, nekk làmb coow le 5 novembre ñu war a ñëwaat làmb ji yàgg loolu naka nga jàngatee combat boobu. waaw combat yàlla ñu ci yàlla yóbbu bala cinq ndax Ama champion la Modou Lo tamit champion la askan bi yëpp di leen xaar ñëpp di leen xaar waaw tamit combat bi ñu ko soxla ñëpp bëgg mu am. kon yàlla ñu suturaal may ñu ko ba làmb ji waaw ndax làmb ñu nar a neex la daal waaw. mais bi noo ko mooy nañ xam ne làmb la rek mun di weesu leneen lu dul làmb làmbu la rek bu ñu jug bu ñu jugaatee ñooy bokk nday ñooy bokk baay bu ñu daanee bu kus daan sa morom lundi wala dima lundi ba da ngay woo sa morom waxtaan moom kon làmb la mun di weesu leneen lu dul làmb waaw. am na solo euh, ani père Lamine. Lamine Kos. fii la jóge léegi-léegi. sama sama waaj sama papa. fii la léegi-léegi. waaw fii la jógee. di ko ñaanal jàmm salaam moom mooy suñu kos mooy suñu kilifa mooy suñu lépp. lu nuy waaye ko li da Balla Gaye yëpp. caat daaw dafaal fàttewuñu ko ndax moo tamit daa jëm bis moo ko dë. yàlla ko yàlla suturaal may ko ndam sedd guy. waaw. am na solo bëgg naa ci nuyuwaat ñëpp comme dab Lat Diop ñoo ngi koy encouragé di ko félicité. mooy ka fal moom géej waay muy Lat Diop ndax géej waay bu muus di bëri sax dina jël Omar mbay na ko am dama ko jox li mbër mi kon Omar Mbaye tamit ñoo ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm ñu nuyu may jàppale ñëpp soo xam su ma amee combat ku su mel ni Pape Mama sama papa sama xarit président école de Balla Gaye an ndaw du ko fàtte Père Moussa Ndiaye Balla Gaye sama grand sama xarit sama kilifa maa ngi koy béggee bu baax baax les de Elton école de Balla Gaye ñoom l'homme fort maa leen di bëggee ñoom buuba ñoom Cheikh Ngaamu gaay maa leen di bëggee di waa sama koñ fii ko fii ma fekk du ma suma ma tuddee benn tur rek mën naa commencé kii mais damay jël nuyoo bi rek teg si loxo géwél yi muy Aziz Niang at Lamine Gueye sama tambour ma soor waaw di bëggee waat ñëpp ñu may àndal su ma amee combat ñuy sonn di wuti ma wutali gàllaaj ñooñu ñëpp maa leen nuyu xam nga di nuyu Père Abdou Mbaw Ndongo Lo xam nga alas ba sa waalo alas ba sa waalo maa ngi koy bu baax a baax waax waaw waalo <laughs> ñoo lay nuyu bu baax alas yaa ngi farandaw farandaw di ko wax nañ bis mi la vingt neuf combat gàqu bi Modou Gueye la si woo combat gàqu bi combat bëgguñu sax ay Modou Gueye jënd ñaari bee ñaari bologu bee quatre bologu bee Modou Gueye borom Pikine booy ñoom yónni ñeen quatre bologu bee lañ soxla ba cinq Fara Ndaw gaay bee combat gàqu bi Lat Diop ñoo ngi woo ñëpp képp koo xam ne mu ngi nekk fii rek ñoo ngi lay woo combat gàqu nga jàpp bu baax a baax a baax waa ASC jàmbaar ku si mel ni mbay Fall Ibou Dieng Maas xam nga waa laqale suñu dëkk yi tamit combat gàqu bi ñoo jàpp si ku si damay jël loolu rek te ko si loxo Abdou Fall moom moo gérer ASC laqale su ma ko tuddee tudd naa ñëpp waa Sam waa Guy Gas ma juddoo ñooñu moom du ma leen fàtte mukk gunaas yaa ngi dégg daal ñoo ngi woon bu dof yëpp bu dofi ñëpp ñoo leen woon nan tey dawalkatu seret yi paq Baye Moussa Sam ñëpp à marché pënd nag fobeere waaw nañ ñëw combat gàqu ñu jàpp poxla yor ko ba kaw sànni ko marché seng du nga sànni sax seen pëlis Pikine marché seng bi ne koy sànni kooxuru dara waaw nice kontaan ci moom bu baax a baax kooku moo nekkoon Youssou Ndour ñu koy bëgg bu baax di bëgg waa Guédiawaye yëpp mbokk yi nii lañ koy defee saa su ne rek di leen wax tam ngeen wéy di abonné ci Zarak Vision yokk abonnement yi bu baax a baax dañ leen di bëgg di bëgg suñu caméraman bi Jow di sant ñëpp di gërëm ñëpp jaa ngeen jëf